topp leen di leen tiire ay balu fetal yéenekaay gi ne na oto yi nga xam ne ñoo yeb na a bant yooyee matricule bi Gàmbi moo ci nekk yéenekaay gi ne na am na kenn koo xam ne ñàkk na si bakkanam ab civil la laas yéenekaay ne na indicateur bu oye foora la yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ne na en tout cas li am ba de sàlla mooy tiirante bal yi niki démb maanaam taroon na lool diggante armée sénégalaise bi ak rebelle li nga xam ne ñoo nekk ci département bu Bignona yéenekaay gi de la Soleil bàyyi mbir moomee wax ci njiitu réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne moo jënd ab avion ji coow li topp ko coow li na cobbaye journal bi nee na Macky Sall góorgóorlu na ndax 2012 ba léegi maanaam ngi jël ay risque di jël Pointe Sarène bañ a jënd ab avion ngir nag sakk na li nga xam ne mooy alalu réew mi yéen kaay gi di alerte xëy na wax ci napp gu jaarul yoon gi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci étude boo xam ne waa IFAO def nañu ko lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay milliards Sénégal dinañu ko ñàkk at mu jot ci ñi nga xam ne ñooy sàcc di napp sunu jën yi yéen kaay gi di l'observateur xëy mel ni lu jommi ne Ousmane Sonko njiitul Pastef kañ la nekk njiitu réewum Sénégal te yëguñu ko forum bi nga xam ne moo doon am ca Lomé Ousmane Sonko bokk na ci ci Sénégal la nekk ca visioconférence waaye nag ab costume la Ousmane Sonko sol jël drapeau Sénégal teg wet gi jël drapeau Union africaine teg bi nee na Ousmane Sonko ku di ñoddi ak président docteur Seydou Nourou Tall dab jàngalekat lu jëm ci wàllum science information ak communication nee li nga xam ne Ousmane Sonko def na ko loole nag la mu sa jublu dafay wane ne jamono ji daal mën naa sëkk ngir nag jiite réew mi nee na Ousmane Sonko dafay nag moromante ak ki nga xam ne mooy Macky Sall loolee moo panafricaine ak drapeau Sénégal teg ci wet gi yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Momar Diongue ci l'Observateur muy wax ci doxalinu Ousmane Sonko nee na loolee nga xam ne Ousmane Sonko def na ko stratégie de communication la Momar Thiam docteur en communication nee na Ousmane Sonko loolee nga xam ne def na ko maanaam nag la mu sa mooy communication di wane ne jamono ji mat naa li ma doon yéenekaay gi di réew mi ko di jeen njiitu réew di président Macky Sall nee na li nga xam ne mooy presse bi jamono ji mënatuñu koo ñàkk asinira démb la ko xamle ci assemblée générale bi nga xam ne plateforme des régulateurs de l'audiovisuel réew ci UEMOA doon nañu ko amale yéenekaay gi de L'As liberté d'expression ak média yeeg réseaux sociaux yi njiitu réew mi di Macky Sall nee na kirawal yeeg njombe yeeg tooxi yi nga xam ne moo ci am mënuñu ko ñàkk lijjante yéenekaay gi de La Témoin xëy wax ci lu jëm ci marché bu Sandaga bi nga xam ne war nañu ko tabaxaat waaye jamono ji xëccoo ba ma ngi ne cooba yi diggante Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau ak Soham Wardini maire bu Ndakaaru ndax ñoo ngi xëccoo marché Sandaga kenn ku nekk nee na moo ko war a defar yéenekaay gi de Rewmi Quotidien ak Source A xëy fekk fa Serigne Modou Kara démb janono ak ak taskatu xabaar yi nee jamono ji Macky Sall dafa war a organiser li nga xam ne mooy ay élection anticipée yéene kaay gi de libération xëy ci braquage bi nga xamante ni amoon na weer ñu génn ci benn boutique chinois ci allée Centenaire am na gaay yoo xam ne tegu nañu leen loxo waaye am na keneen ku yees koo xam ne jàpp nañu ko niki démb ca Grand Dakar am mbër la mu tudd Modou Gueye ñu naan ko général mu nekk écurie Fass Grand Dakar la ñu ko jàppee waa dik ñoo ko jàpp kaay gi de l'Observateur xëy xibaar mbir mu doy waar a doy waar a mbir mu yéeme yéeme moo xam ne ca diwaanu Tamba la xewee am benn soxna moodu moodu boo xam ne maanaam da doon ànd ak ki nga xam ne ab ex copain la ba nag ndogal fekk ko sax mu wan na ro ba mu demee nag ba ëmb ba jur dafa jël doom ja xoj ko ba mu sedd guyo yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ay xale yu ndaw yu xonq yoo xam ne juddooguñu ñëw léewoon ab oto doon ci def nag ak reewante ba mbëkk ab policier policier ba sedd guyo yéen a kaay gi délibération nee na xale yooye nga xam ne ñëw léewoon ab oto policier bi bi mu leen arrêté dañoo lànk kandaare jaar ay doomu ñu am xaalis xam ne moo leen léewoon oto ba